je viens de France. ah de France waaw. ok euh, nan nga gisee maanaam mbokk taalibe comment euh, les cantakun. Ah, les Tiantakun, <laughs> ils font le béguet. Ah, le béguet. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, mhm. c'est un jour de Tiant. Mm -hmm. grâce de la rencontre entre Sen Vetio mhm. et Sen Salou, ce avril mhm. qui nous a permis, nous, de tout avoir. Moi qui ne, connaissais, pas en Dieu, qui ne connaissais pas Serine Saliouf, Serine Bétio m'a récupéré. Et c'est grâce à ce jour-là. Il m'a récupéré. Il m'a mis sur la voie mouride. Il m'a aidé à rendre grâce comme Serine Saliouf le lui a appris. Et ce jour-là, c'est un jour de tiante. Donc dire Dieu, c'est une bétio. Je rends grâce à Serine Salou. Grâce à d'après, euh, depuis ta connaissance avec euh, le cher les Tiantakoun sont des talibés, des talibés mourites. Ils aiment Saïn Betio. Ils veulent œuvrer pour Saïn Betio. Ils veulent lui manifester l'amour qu'ils ont pour Saïn Betio, le tiofel pour Saïn Betio. En Saïn Betio, les Tiantakoun ne voient que Saïn Saliou. Et en Saïn Saliou, on ne voit que Saïn Touba. Ah, on est là-dessus quoi. On fait, on yongi gorgolou boubar, ti ti yonbi. Jërëjëf, D'après li ngeen gis moom day ndasaraan la Serigne tuba gindi ko si boppam mu ànd ak Serigne Béthio. depuis boobu ba tey tey gis nañ la ni nga wane si si baas bi. waaw mais sant nañu waa Touba euh, Tawfekh Production si maanaam si sa reportage bi nga def fii ak ay images. waa on est très fier d'avoir vu ton, euh, ton, ton, le, le, présence, la présentation entre toi et le chef. Ah, wow. ok, allons voir. Ok, waaw Ni la fay demee saa su ne waaw Tawfekh Production nii la fay demee saa su ne mbokk taalibe ñëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla waaw sant nañu bu baax waaw jaa ngeen jëf mbokk taalibe yi waaw ñu ngi siyaar waa Tawfekh Production ànd kook seen tala ñu ngi leen di siyaar jaa ngeen jëf waaw ok jaa ngeen jëf Thank you. waaw salaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi Tawfekh Production muy seen euh, image di leen ko indi si internet bi depuis boobu ba tey ñu ngi woon fii si euh, Madinat Salaam dëkkul sëriñ Béthio bi ñu ñëw si cant 17 avril le 17 avril suñu ko waxee suñu xel day dem si Serigne Saliou ndax 1946 la woon ba tey 2018 ñu koy feetee mu nekk 72e année tey lépp loo xam ne daal xayma nañ ko si bis bi maanaam mooy mbig mi léegi rek ñu ngi doon waxtaan benn euh, française mi ngi doon wax ak cantam jëmale ko si Serigne Béthio Serigne Béthio mbokk taalibe jën jël oto bu rafet indil ko ko soxnaam si soxna Aida ak soxnaam yëpp ànd koog mbokk taalibe yi jëf-jëf joo xam ni ràññeeku na si réew kon sant giñ koy sant mooy yàlla nañ sax ni leen koy ànd ak yéen nag saa su ne fépp foo xam ne am na ak cant ak image ak cérémonie yëpp. Tawfekh production dina leen ko indil ci internet bi di leen ñaan nag ba beneen yoon ci kàttanu borom Touba jaa ngeen jëf ko taalibe yi